alali sëñ Massamba lañu te yaay sëñ ma Massamba kon nag euh, fii bu ñu waxee war nañu wax bu ñu wax li war nañu wax mooy sant nag ñi ma àndal it ñëpp itam ci sa kanam it comme ni ko Cheikh waxee parce que euh, ànd euh, bu ko dëgg lale rek dina yàgg te it bu ñu warantewul it dina yàgg te it lépp nag buñ ko tegee ci digg ci yàlla siraatul mustaqim dina dëgër donc it mooy li mu wax noonu rek parce que kenn rek mënul dara ak lu mën a xew kenn mënul dara kon ñoom ñi ma àndal euh, tam ñoom it seen loxo mi ngi ci biir ndax man du fi nekk toujours bu ma fi doon nekk toujours it du ma man toujours du ma man lu xewit ma taxaw kon bu nekkee fu ma nekkul ñu man fa taxaw donc euh, ànd boobu tam defe naa ni bu jara sàkku ñaan la yàlla ñaanal na ci bu defal na ci ñaan bu baax a baax sa allahuma xam nañ ko xeebuñu ko te it xam nañ ko bu wér nag te su ma waxee loolu ñu nekk fii war nañ ko gëm ndax it li bàcc wax nii léegi wuuteelu ma ak Cheikh Modou Faty Khary dara wéet nañu wax la ko toog naa ci biir nit wax la ko nekk nañu fu ne wax la ko ba ci sëriñ Cheikh sama wëla sama diggante yow dama ko wax ndax it tam mun ñu passé lu dul taali bi kon ñu ngi lay sant bu baax di la sagoo bu baax a baax a baax a baax lii nag euh, dañ noon nañu ñëw tey seet si ndax fi liggéey bi tolloon ci suba ñu ngi jottoo jokkoo ak njuga di ko laaj ci problème mu suuf bi yeeg comme ni nga ko waxee ak éclairage bi wax dëgg yàlla defe naa ni jéem nañ ci suñu kéemtalaay kàttan di ñaan nag toujours nag saa yu ñëwee rek ak ni mu waxee ni du defuñu lu dul déglu ndigal lu ñëw rek yàlla def man caa def ba def lu kawe suñu jort ndax it suñu bopp rek lañ koy defal. ndax it ñun kër gi lu mën a xew ñun fi lañ bokk kon bu ñëpp dee ñëw tam di ay di suñuy gan dañ cee war a bég te ñi ñëw ñëpp itam yaakaar indi leen fi te at mu ñëw at moom a gën a neex kon ñun dañ ciy bég ndax bu meloon na neen it ñoo ciy des su melee na neen kon it nawan rek kon loo nga xamante ni daal euh, Sénégal gépp jullit yëpp ñoo koy waxtaanee ñoo koy euh, bokk di ko xaar lu ca mën a nekk ci njariñ lu ca mën a nekk ci mbégte ci réussite dafa naan ku ca bokk rek sa mbégte la ndax bu melan na ne nit mu nekk sa nga des ca danga nga cay wéet ndokk nag bi nga xamante ni wax dëgg yàlla Thiès xaw ma Sénégal de waaye cees gi moom wax dëgg yàlla ku fi nekk rek bis bi bu jotee sa xel mi ngi fi ngay murit ngay tijaan nga def jullit sa xel a ngi nekk Baxdaad te loolu lépp nag wax dëgg yàlla sa Pastef la ko may am na nu boo ni mele nit du nu mel am na ñu la ëpp yaat fop ji def fi mais nag ba nga ko commencé ba ndege ni at mu dikk gàcceel ba ca des kon nag yàlla na loolu yàgg ñun loolu suñu mbégte la dañ ciy sant bu baax euh, sa xarit it sa wóllëre Idrissa nuyu na la bu baax itam ndax bi ñu jógee Tiwaawan moo tax sama xawoon a tardé nii doon ko xaaraale ndax dafa programme ren ni day ñëw def tuuru kër sëriñ si fekk na xam naa peut-être mën na am empêchement ndax booba léegi maa ngi koy woo jotuma ko ndax bi ñu jógee Tivaouane lañ ko waxtaane ba mu ni daal dina def tout pour ñëw ziar si te ni xam na ni yéen a ngi koy bàyyi xel ñun ñu seq ak yéen itam yéen a ngi ñu ngi def suñu digganteeg yéen li nu war waaye nag moom it doon na rafet pour mu ñëw itam euh, saafonte ak yéen ziar leen ci bis bi loolu la aman yéene yàlla rek ma tax di wax li may wax nii dama ne keroog euh, daje jaar naa Tivaouane daje fa ak euh, ma ma koy nettali te it euh, mu aman yéene def ko ba noonu semaine bi yëpp itam bu fekkente am na benn possibilité rek rek ndax dafa amoon programme bu mu aman tey jii ak suba bu ci amee possibilité de bu ko amul it nan ko fi nekkal jottalil ko kàddu jottalil ko ziaram jottalil ko tam wax dëgg yàlla euh, ay nuyoom yu gën a sel ci digganteem ak yéen ndax euh, ni na ak lu gise bi néew na waaye xamante ngeen kon nag euh, wax dëgg yàlla daal ñu ngi ziar bu baax di dellu di la ñaanal yàlla yàlla na taxawaay bi yàgg yàlla na wér gi topp ci yàlla na barke bi gën a yàgg lool ndax it wax dëgg yàlla sagu yoon wi nga euh, sagu lislaam nga aussi ndax ko xool li ngay dajale fii ci mbooloo surtout jeunesse ëpp ci te it wax dëgg yàlla euh, ñooñu ñëpp di ay royuwaay ah ba fu ñu taxaw ci Sénégal ñu ràññee leen li leen di ràññee tam fu ñu jaar ni kan ñii kan moo leen éduqué loolu rek doy na mbégte ku bokk yoon bég na ci ku bëgg lislaam bég na ci ku bëgg diine bég na ci yàlla na taxawaay bi yàgg yàlla nañu yàlla gën a dolli allahuma yi gën a dal ba lépp lu ñu yéenee fii man ko def ndax lu ñu fi defee du lu ñuy rëccu yàlla nañu yàlla dolli sutura ñu ngi nuyu ñëpp di sant mbokk taalib yi fi nekk yëpp itam ndax ñoom ñëpp fu ñu ci daje ak ñun li ñuy xoolee suñu diggante yow xam nañ ko ndax dañuy xam ni am na relation bi ñu am taalibe gi xaritoo gi boole ci loolu kenn ku ne dañuy jox cër boobu kon nag daal ñoo ñu sant la ci seen kanam ni leen sant ni leen bu baax a baax ñu ngi sant ñëpp yal na yàlla dolli na jërëjëf dalal lu ñu def it daluwaayu maire bi daluwaayu maire bi kooku ëllëg la bu mu ca tolloo yow waa dëkk bi waaye lii moom xaritoo gi la ak bokk gi nga xam ne séq nañu ko te waxtu wu ñu tolloo fii nga sol dàll wi ñëwaat xool doxalin yi fu mu toll ya ca njëkk ak yi ci mujj cheikh mi barki dem rek jaar na fi jël fi këyit bopp liñ ciy soxla ak liñ fi def yëpp ba mu ñëwee noonu la ko jëlee te ba mu demee nee na ci ni mu waree boobaa tey bis bu ne mi ngi fi nemmeeku di fi dikk ci sa tur keroog bi ñu dajee ca ndaje mayit it wane na bu yar wane na it ni kilifa la fa toogal wax na fa it taxawaay yoo xam ne looloo lu ma bëgg ci doomi aadama la kon it na mu defee rek noonu rek laa la lay jërëjëfalee nga ñii nga yàgg a def di ànd ak soxna su jënd mi booba yàgg na du tey nga fi dikk dikkin wii lu ma mas a nekk rek nekk nga ca gàmmu gi fi ko mas a leen lépp fu ci nekk taxaw nga fa bañ gis la fu ci nekk jëf nga jëf sa alal te ba nga koy defit lii mbubb mii taxut kon tey dara ji ji nga fi dikkee mooy ji nga fi daa dikkee ja ca des na xëy na ëllëg ñu bokk kooku wàccee sag waa dëkk bépp kooku geneen wàll la waaye sa tànki tey yi daal sant naa ko lu jiitu ak lu tey lii saa su nekkee rek benn nit ki nga benn taxawaay bi nga benn jëfin wi nga loolu rek am solo sama digg ak yow nag àddina du ko sababut du sabab yi waa jamono toll ndax man bu ma amee fulla tuuti rëcc naa yi waa a mën war a tuuti ndax koo xam ne yàlla sa borom teg na la fa mu la war a teg kon waruloo jublu lu dul yàlla rek ma war a ñor nag ndax wax nga ko léegi maguma fi te lu ma sémb yàlla fekk ma ca kon nag man waruma def lu dul bu sans sublu sans borom kon yi nga xam ne jamono fa toll rek jamono di ko sàkk ko wut dañ leen ciy ñaanal yàllaa ko jàppale waaye man yooyu dara waratuma caa jug ñaan yàlla nag sunu borom it saa su nekk ma wax ñii mu gis nga koy doxe ak lii nga xam ne moom looloo la soxal ci nit ñi soxal la ci réew mii yàlla sama boroom yokk say daraja ba nga toll foo xam ne di nga nekk foo xam ne di nasaka nocc loolu mën a àgg ci ñëpp wax naa la ko fi ba tàyyi man loolu laay ñaan yàlla nii ñu ko ñaane woon yàlla nga fekk ma waxtu wii ma julli ba yeggali di jàng alxuraan nga ñëw ne ma damaa bëgg nekk maire may la am ko am nga ko wax ko ku la sopp waaye maa ngi ñaan yàlla yàlla yóbbu la foo xam ne di nga mën di nas ak nocc buy jëm ci nit ñi ndax sa wëllëre mate na ko say jikko matte na ko ku am fulla nga ku am fayda nit nag boo ci dindi fulla dindi ca fayda bareetul solo ndax fulla moom mënut a weesu waxtu wuñ la tege loo attanut tege ko ci teg ci suuf fayda nag weesuwul dara lu dul lépp lu ñuy décidé te bokkoo ca def def jàmbur loolu dong mooy fulla mooy fayda te loolu xam naa ne ci nga nekk te maa ngi la ciy gis di la ci dégg kon nag lii rek laa ànd ak yow nag ànd bi yàgg lool ba may jàng ba ndëgg ni nag di dikk sa kër ñu dem ak dikk ah, loo ma sa am defal nga ba tey jii nu bokk ko loolu la ñuy wéyale di ko wéyale di ko wéyale ba keroog nuy fekk Serigne Touba ak Cheikh Massamba mi nga xam ne mooy sunu wéyjur ñun ñëpp kon nag loolu rek la ñuy ñaan jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm nag sama xol sedd na guy yi ne xam naa ne yow rek yaa am nii ma xoolee muy kukk te déw ma julli ji timis mayuma ko kenn sama bopp mayu ma ko kenn sama bopp xam naa ne kii da doon bëgg a wax moo tax ma fëkkal ko sama bopp <laughs> ndax xam naa ne loolu moom mayu ko kenn moom waaw mayu ma ko gis naa muy fukk nii daal te juguma waaw loolu moom mayu ko kenn waaw loolu moom mayu kenn jërëjëf maa ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax amul lu ñuy feddali amul lu ñuy yeesal ndax bu fekkoon dara dara lenn dugg na ca luy tolloog pépp suuf sax nu mën koo sekk waaye dara da caa dugg tey la gën a rafet tey la gën a neex waaw jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm jërëjëf sama xol sedd na guy nuyul ma président sa sekki tamit ndax moom it yoon yi mu fi am yëpp yaag moom a ànd nga jàpp loxoom ba indi ko ak ak seede ak moom la mu seede ci yow seede na fi it lii Cheikh mi wax dama parti bi joxuma ko dërëm pap mooy def lépp waaw loolu seede na ko fi kon nag jërëjëf te loolu rek lañ seenu ne xam naa leneen lu mu fa defoon buy seet kum ko kalaame man maa ci njëkk leneen loo fa defoon buy seet kum kalaame rek man maa ci njëkk kon nag jërëjëf tubaar fakal amiin